li jaadu woon ci noonu mooy buñ diggee ci barab bi bu mënta ñàkk noy noy képp la si war a def sees bañ na mayoon man bañ a noyyi desu noyyi te sëriñ Abdou Samad ci lu bëree bari waaye matadik doomu aadama rek moo nu jàpp na ko sëriñ bi waxoon te mat la bu sifaa yi rek noo ngi koy yeesal suñu sañ day bàkki jox la sàq waaye noo ngi tuub eh, waxuma sax def mel ne defaale nañ ko njabootu sëñ Tuubaa gi ñoo ngi koy tuub de ndax Cheikh Abdou Samad miy toog ak sëriñ Amsatu miy toog de ñoom xam nañ xàq sëriñ bi te jox nañ ko ko ànd gi ñu ànd ñoom nag ak nii nu doxee day mel ne dañ cee ànd noo leen koy tuubal ak matt di la ak kër gu ëpp ak ñàkk xam waaye la jaadu woon mooy fii jataay bii daa waroon ni wéyëng sëñ Abdou Samad ak sëriñ Hamsatu mën a saafoonteeg yow nga duyal leen ba nu fees bu nu gestoo duyal nu ndax sëriñ bi kat ba muy dem ca boromam ñu ko toppoon daneen toog leen ma dem ca ñëw waaye bi mu ñëwee li mu wax mooy def ne nafa an yii wa biyee yéen faxul waraa ku am ku mel noonu nag war ngaa mën a noppalu ndax koo xam ne bu demee du yem ci njariñal boppam day tibb njariñam ëndaaleel sa te bu la bàyyi woon doo xam yoon wa baa boo demee doo am teggin mën caa jot ku am ku mel noonu day la waroon ci yow mooy ne tekk te loolaay lii ni ko seen sama di waxee kookaay kii ñooñaay ñii kon noo ngi tuub tey jégalu di nuyoo di ziyaare te di la ndokkeel ci barab bu sell bu tedd bi ñu la fekk ak sa njaboot gi tedd yi ñu àndal di la xamal ne dikkaat nanu fas yéene ànd ak yow liggéey bii te am yéene defale la ko ni nga ko bëggee tey ñaan nga dimbale nu ban defe ko noonu ndax bokk na ci turu sëriñ bi buy dal muy dal ci noonu rek la desee waaye buñ ko defee ni ko bëggee rek li mu bëgg lépp mu defal na ko moom ndax jàkku na na ko ndax juba nag boromam ci loolu noo ngi ñaan nag ci barkeb njabootam ku tedd gii euh, pasteefub foofu Abdou Samad ak yittey sëriñ Amsatu Mbàkke ak bëgg gi mu bëgg xasida yi ak dox gim mu ciy dox noo ngi joggi ci loolu di ñaan di dagaan sëriñ bi mu gën laa wéral te gën la fa yàggal loolu yomb na suñu boroom lool maa koy ñaan ci barke mbootum xasida yi di la siyaare bu baax di sant bu baax tey jéggulu jataay bi ni mu demee moo waral kàddu yu mënta sori ndax lu bare bari waaye yow xam nga lépp mbàkke jërëjëf si Abdou Samad noo ngi tub tey jéggulu sëñ nee na ndegam ñun ñëpp jàkkaarloo nañu ak moom mu xool nu bëti yërmandeem yii mu xool nu bëti yërmandeem yii amatul lu ñuy bëgg amatul lu ñuy lu ñuy wax amatul it lu ñuy wax day mel ne almuriidu kal mayiti bayna yaday xaasilihi. day mel ne almuriidu kal mayiti bayna yaday xaasilihi. mooy ab murid daa war a mel ne néew. nee na ab murid ab murid dafa war a mel ni ab néew. du ne nañ ma wëlbatee nii. du ñu nañ ma wëlbatee nii. du ne nañ ma sangee nii. du ñu nañ ma sangee nii. ñun ñëpp ay néew lañ. ñun ñëpp ay néew lañ. nañ yem ci loxoy sëñ Tuubaa. kon nañ yem ci loxoy borom Tuubaa. bàyyee ko suñu bopp. bàyyee ko suñu bopp. moo xam li gën ci nun moo xam li gën ci nun moo am li gën ci nun moo am li gën ci nun mu defal nu li ñu gënal te gën ci nun mu defal nu li ñu gënal te gën ci nun sëriñ bi xam nga nu sëriñ bi xam nga nu xam nga suñuy xol amatuñu lu ñuy wax noo ngi suñ lépp a ngi suñ ñëpp a ngi suñ fépp a ngi sëñ bi nee na jërë jërëjëf sëñ bi nee na jërëjëf Mbacke dégg nañu kàddu yi bu baax dégg nañu kàddu yi bu baax alhamdulilah alhamdulilah. amaat naa ci bind bu yees peq. amaat na ci bind bu yees peq. noonu yi mu ko waxee rek. ci noonu yi mu ko waxee rek. suñu digg ak sëriñ bi. suñu digg ak sëriñ bi. noonu yi dong la demee. kon suñu kem kattan. kon suñu kem kattan. nañuy jéem. nañuy jéem. nañuy jéem. di ko nekkal. di ko nekkal. suñu kem kattan. suñu kem kattan. waaw sëñ Abdou Samad wax na lépp. nee na sëñ Abdou Samad wax na lépp. ay néew ci nañ ci doon doon ay néew fi moom. nañu nañ doon ay néew fi moom rek. daa daanu dolliku. daanu dolliku. daanu noppalu. daanu noppalu it. daa daanu dund dund gu sell. daanu dund dund gu sell. am xel mu dal rëtiix. am xel mu dal rëtiix. di di di di gën a di gën a di gën a di a xeeb suñu bopp. di gën a xeeb suñu bopp. ci ci ci ci ni ñuy wute sëriñ bi. ci ni ñuy sëriñ bi. noonu rek la. nee na noonu yi rek la. gën góor góorgóorlu bu baax. gën a góorgóorlu rek bu baax. nekkal ko rek incha allah. nee na ñu nekkal ko rek incha allah. suñu kem kàttan. sunu xel dal na bu baax. nee na sunu xel dal na bu baax. sëñ Aliou yu njëkkoon a waxee rek doon na. nee nii ko sëñ Aliou yu njëkkoon a waxee doon na sëkk. sëñ Hamza mii ak sëñ Samat mii. nee na sëñ Hamza mii ak sëñ Abdou Samat mii. yàlla boole ñu fi toog fi sëñ bi ñu bokk fi teew. nee na yàlla boole ñu toog fi ko sëñ bi ñu bokk fi teew. na nee na loolu doy na sëkk. yaakaar. nee am na yaakaar. doy na yaakaar doy na yaakaar. doy na xel mu dalit. doy na it soññu. doy na it soññu. soññu suñu bopp bu baax. soññu suñu bopp bu baax. nee noonu yi rek la. def sëñ bi muy seen lépp. def sëñ bi muy suñu lépp. muy suñu dund. rek nee na loolu yi rek la. buñ ko defee rek. nee na buñ ko defee rek. danañ am danañ am danañ am tey ak ëllëg. ëllëg. loolu rek moom la ñuy jural. nee na loolu rek lañuy ñuy jural. kon nag alhamdulilah. loolu lañ ci mën a yem. nee na foofu yi rek lañ ci mën a yem. tawar kàlla Mbacke tawar kàlla. jërëjëf tawar kàlla sori na lool. nee na waaye sori na lool. jotaay bi yóbbu nañ fu soree sori. yóbbuwaat nañ fu sori. nee na yóbbuwaat yóbbuwaat nañ fu sori. fu dal sama xel. nee na fu dal xelam. alhamdulilah. kon jërë ngeen jëf. yéen mbokki taalibe yi. yéen mbokki taalibe yi. seen sama bos teew fii ñu ngi sama bos ci nee seen sababa teew fii mi ngi sababa sëñ Hamza mi ak sëñ Abdou Samad mi nee na sant leen yàlla bu baax. ngeen xam ne. nee na boo yóbboo ngeen xam ni. yoon wii ngeen aw. yoon wii nu am. ajana rek la jëm. ajana rek la jëm. ak dal alhamdulilah. dañuy gaa yi yàlla yi dañuy ñoom dañuy wax ne sax àjjana taxu leen a jóg. nee na gaa yi yàlla yi dañuy wax ne àjjana sax taxu leen a jóg. kon nag. kon nag. sëñ Xamsa mii. sëñ Abdou Samad mii. ñoom ñoom ji romb nañu. nee dañuy jàpp ni ñoom romb nañu. taxu leen a jóg. àjjana taxu leen a rek moo leen tax a jóg. te fàggul nañ leen ko itam. te it moom rek koy maye. moom rek koy maye. loolu rek mooy maye ridwaanullaahi. alhamdulilah kon nañ sant rek. nee na mënu si wax. mënu si wax lépp. jërëjëf tàllal leen. bi nag. sëñ Abdou Samad nee dafa am lu muy ñaan. taalibe yëpp dafa am baat buñ koy ñaanal. daa am ci yow. daa am luñ bëgg ci yow. te mënaluñ ko seen bopp. te mënaluñ ko seen bopp. te mënuñu koo ñàkk. te mënuñu ko ñàkk. mooy nga yàgg fi. yow mi nga xam ne nag. yow mi nga xam ne nag. ki nga fi nekkal. ki nga fi nekkal. mësta tooñ boromam. mësta tooñ boromam. mësta tooñ moromam. mësta tooñ moromam. te bëgg ci boromam am te lu mu bëgg ci boromam am ko. te juboo nga ak moom. te juboo ak moom. gërëm na la. te gërëm na la. benn baat rek lañ lay ñaan. benn baat rek lañ naan. nga ñaanal ñu sëriñ bi. nga ñaanal ñu bi. sa jëmm ji yàgg fi lool. sa jëmm bi yàgg sa jëmm ji yàgg fi lool. ba li nga ko bëgg liggéey lépp nga def ko. loolu ñun nga ko ko defal. sëñ bi neel neel na nga fi yàgg rek. sëñ bi neel fi yàgg ñu dégg ko. waxal nu lool rek. waxal waxal na loolu Mbacke yàgg fi rek nee na sëñ Muntaxa na fi yàgg dimbali leen rek wax ko Mbacke boo ko waxee ni sëñ Tuubaa defal dimbali leen nga sëñ Tuubaa rek ñaan loolu jaar gi jaar ci lam bi ñëw ci xol bi dama day sëkk wallahi Mbacke yàgg fi yàgg fi rek yàgg fi rek Mbacke yàgg fi rek yàgg fi rek amal njëriñ mu jëpp ci gim jóg ci yéen ji ak ci posté bi jaar ci lam bi loolu dafa day sëkk mu ci dolli dara alhamdulillah jërëjëf baax na baax na baax na jërëjëf